nee na sëriñ bi mu ne ñoo ngi nuyu sëriñ Muntaxa nee na tey ñaan sa borom ko fi lool neena na mébétam yépp mu ko nee na ginnaaw bu loolu wee nee na sama bokk yi fi nekk yépp nee na maa ngi leen di nuyu neena na te di leen sant nee na ndax kenn desul nee na ba fi sëriñ Abbas nekke nee na ba ba ko fi yàlla jëlee nee na ci coobareem nee na daanaka dala laata moo mat weer neena kenn ku bokk ci boroom daaru musti desul nee na ñépp ñëw nañ ci moom nee na nañ defoon borom daaru ñu def ko moom sëriñ Basiru mii nee na ministre bi itam nee na ñoo ngi lay yóbbante nee na nga nuyul nu président Macky Sall nee na ca santal nu ko nee na ndax buur moom nee na moom rekk moo fi nekk nee na akub sëriñ nee na su fekkente ni bëgg na laa woyofal nee na bëgg laa dimbali ah, nee na la nga bëgg mu def ko nee na ci àdduna nee na moom dong mu nag moo ko moom nee na su fekkente nag nee na lii nga xamante ni mooy sëriñ Touba ak Thierno nee na ñoom rekk ñoo ko man ah, nee na kon ñoo ngi leen di dénk nee na jaamu yàlla nee na ak topp yàlla nee na ak li yàlla digli ngeen def ko nee na li yàlla tere ngeen bàyyi ko nee na yéen bokk yépp laa ko digal nee na ak yéen taalibe yépp nee na ndax ku ko deful kat nee na bu ñu demee fa ñu jëm nee na da nga ko réccu nee na li nga xamante ni moom laay war a wax ci gouvernement nee na ak ci soxla yu ma ko war a teg nee na ak ndimbal yu ma ko war a sàkku ci moom nee na ak lépp lu ma war a wax ci moom nee na sëriñ Basiru mii laa koy waxloo nee na waxloowu ko kenn nee na képp koo xamante ni danaan maa ko ko waxloo ku dul sëriñ Basiru mii nee na da ay wax day wax ay waxam rek nee na àdduna nag lii fi nekk nee na mooy jaamu yàlla nee na ndax nee na boo bëggee sa àddina nee na jaamul yàlla nee na ca toppali sëriñ Touba wax nee na ndax foofa kat Serigne Touba rek fa man dara nee na tamit moom dong lan fa yaakaar. nee na ca li mu nu defal ci àdduna sii nee na tax na nu xam ni eh, nee na buñ demee fan jëmit nee na yaakaar naa ni keroog lay raw nee na kon nag kon nag nan ko topp Serigne Touba nee na te gëm ko nee ta bañ ko booleeg dara nee na ndax borom daaru mii nee na mooy jëwriñam nee na moom la jiital nee na moom la jëkkaam nee na ba nga xamante nii nee na yàlla def na sunuy nopp nee na mu nekk ci néeg nee na génnagul nee na la ko Mamor Anta nee na mooy Seydou Saliin nee na Seydou Saliin nag boo ko déggee nee na ñitti niti àddina yépp nee na moo ci gën nee na boo xamee nit ni xut bu samaan wéy na nee na moo ci tegu nee na la ko la ko sëriñ Mamor Anta Sali nii nee na mu ni ko man de yàlla xamal na ma ni nee na kii soxna Faati Isa nee na lii nekk ci soxna Faati Isa nee na bu génnee nee na tey góor nee na li nga bëgg lépp da ko am nee na boo xam ni leneen la nag nee na lu góor nee na dana am ay manqué-manqué nee na yàlla def muy góor nee na sëriñ bi dem ñaanal ko nee na bindal ko téere nee na sëriñ Tuubaa ni ko jox naa la Maam ni ko jox naa la ko nee na xanaa kook nee na kenn du weranteek moom ci njëkk a jébbalu de nee na loolu mënta am nee na bi nga xamante ni dikk na it nee na sëriñ bi ni ko nee na lépp lu ma am jox naa la ko nee na ndax yow nee na ci mujj la ko wax nee na da koo xam ni kii nee na bu doon ab kursukat nee na dangaa jëkk a daw nee na te laa taxaw nee na kooku nees koy jote nee na loolu ci sëriñ Abdou Khoudoss laa ko déggee nee na li nga xamante ni mooy àdduna nee na ku ko bëgg nee na da ngay topp sëriñ Touba nee na topp ndigalam nee na lu mu la digal nga def ko nee na lu mu la tere nga bàyyi ko nee na ndax moom fu mu joxoñ rek nee na foofa la ñëpp di nee na loolu moom na ngeen ko xam moom. Ah, nee na bu dee wetug àllaaxira eh, nee na Serigne Touba dong moo fa man dara. nee na man toog naag Cheikh Abdoulaat. nee na mu ni àddina day la ñuy wax diw mooy sama sëriñ. nee na wala diw sama nangam. nee na waaye buñ gasee. nee na ba bëgg ko caa dugal. nee na kuñ ni yaay sëriñam. nee na kii yow la fi yaakaar. nee nga bañ. nee na kon Serigne Touba dong moo fi nekk. nee na nañu topp ci moom. nee te yaakaar ko. nee na te xam ni. nee na àdduna bi day jeex. nee na man sama wàll day li ma ciy wax du bari. nee na ndax jaamu leen yàlla nee na topp leen ko nee na ndax borom daaru nee na mooy ki nga xam ni nee na sëriñ bi def cee wax ni nee na sëriñ Abdou Khader nee na ñetti wax yu mu ko wax rek nee na teyit boo andi woonub kaamil nag nee na mën naa la ko waatal nee na dañoo toog di tàngal ataaya na mu toog ci piliyaanam boobu nee na booba sax waxtaanu àddina rek lañuy ñuy waxtaane nee na sëñ Abdou Khadir ni man day li ma ciy dugge neena na ceerno de moom nee na xam na ci sëriñ bi lu kenn xamul nee na man na ci sëriñ bi lu kenn mënul nee na am na ci sëriñ bi lu kenn nee na yett yooyu rek nee na doy nag màggal nee na doy na wax ci moom maam ceerno doy na sëkk nee na ku ko waxoon mu doy nee na toog naa ci Seex Abdou Lahad nee na mu ne Ablaye Wade nee na Ablaye Wade ñëw fa nee na maa ngi toog nii nga xamante ne noonu la Baye Samb tooge nee na mu nuyoo leenu mu ne ko Ablaye Wade ni ko damaa bëgg a tàggoo ndax damaa am réunion nee na Dakar nee na tey ci 6 heures nee na tey ci 6 heures mu ne ko nag dama bëggoon nga dem daaru nee na ndax foofee la ñuy faloo nee na fa la ñuy folli ko itam nag nee na bu fekkee ne nii nee na réunion bee la gënal nee na nga dem ndakaaru nee na mu ne ko su fekkee faloo la gënal nee nga toog mu ne ko maa ngi dem daaru léegi nee na mu ni ko boo demee demal ci Abdou Khoudous nee na foofa la ñuy faloo nee na foofa la ñuy folli ko nee na Ablaye Wade ni ko na waxuma la réunion ba waaye nee na nguur gi sax nee na boo demul ca réunion ba folli ko nee na damay folli yépp nee na damay daal dem daaru yépp ànd ak gouvernement bi nee na te duma fa jóge te yeewuñ ma nee na kon ku bëgg àdduna nee na da ngay def noonu nee na ndax fii nee na daa bokkul ci dëkk yi nee na Touba la nee na na ngeen xam ni mook Touba ñooyem nee na ñun ñëpp nag nee na nañ ko xam na ko ñëpp xam na ko ñëpp xam eh, nee na ndax nii màggal gi mel ren nee na ndax gis nga ko ci geneen màggal nee na muntaam nee na muntaam nee na sëñ Abdou Khoudous nee na Ceerno day jonge ju njëkk tëpp tëb nee na tàkkagut nee na wàcce naa ko ñetti yoon nee na mu ne ko damaa gis wàcce goo de nee na boo wàccul nag du ma wàcc nee na loolu moo nu may lii nee na na ngeen ko xam yéen ñëpp.